laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah asalaamaaleykum mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen ziyaara jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi xalifatul am li taifatul muridiya Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké di ko ñaanal mu yàgg si lool ci ànd ak wér Serigne Saliou Faye moo leen di woo ci ndogu yi muy amal kañ lay doon le 24 avril yabook dimanche fan la foofee ci diwaanu Diourbel la fas yéenee déparé waaye nag Serigne Saliou Faye nee na du ci wéetali benn yoon dina ci ànd ak Serigne Assane Ndiaye ñu daal di wutali ca dëkk boobu ñu naan Ñàmbur fekk fa jàmbaari Serigne Touba Mame Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh Ndigal Sène kon mbokk yi ku ko dégg jàppal ne loolu